beaucoup merci beaucoup kilifa faut na ko de 2004 à nos jours nous avons choisi l'opposition parce que nous nañu ni dem privilège Privilège, ay privilèges taxuñu jóg li a développer le peuple développer le Sénégal avec nous, comme nous ni Sénégal nous sommes ñi ce peuple, on vous respecte. Je disais à quelqu'un, au président Habib, Maniko, Nyamna, gaz lacrymogène pour Ousmane Gom, Nyamna, gaz lacrymogène de Mbaye Ndiaye, Nyamna, gaz lacrymogène pour Abdoulaye Daouda Diallo, Nyamna, gaz lacrymogène pour Ali Ndiaye, Nyamna, gaz lacrymogène pour Antoine John. Taïnak, nous lui demander à Sidiki Kaba nga xam ni danga xam ci droit de l'homme nga fexe ba lu melni mu koy multiplier le peuple sénégalais même di nous di exprimer li nga xam ni moo naqadi pendant longtemps on a voulu nous opposer aux forces de l'ordre à ces policiers et à ces gendarmes je suis militaire je sais ce qu'ils subissent. On ne peut pas nous opposer à eux. Ce sont nos frères et vous voyez comment ils encadrent cette manifestation. Lui, on le continuer parce que lui, la démocratie demandait. Et non respect à ces forces de l'ordre. Notre combat de nul à sous le combat nul avec le président de la République Macky Sall. Nous avons opposant, nous ce projet projet président Ousmane Sonko kenn nous ko Nous sommes libérés. on exprime notre inquiétude ci li sociaux concernant son état de santé Nous ne pouvons pas nous permission pour dem interdire en tout cas le président Macky Sall m'a solennellement na libérer le président Ousmane Sonko mu mën a ñibbi ci wetu ay njabootam na libérer Alou Sané na libérer tous les détenus politiques ñoo ngi dem ci élection présidentielle Ousmane Sonko est candidat et comme nous, tous les autres candidats, nous nous baillons, nous préparons l'élection et le peuple souverain que vous êtes, vous êtes les seuls habilités à choisir votre prochain président. Et ce n'est pas à lui de vous dicter qui vous devez choisir. Encore une fois, je vous exprime mon admiration, mon respect et nous allons continuer comme de déterminer où le combat, on va le gagner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dédé. ñu ngi Mamadou Mbodj may mun a Bousso ñu lay demandé nga ci kaw da nga est parole le doyen Mamadou Dumboch. ah doyen. alaikum, mbokk mi F24 ñu di nuyu ñu di gërëm ci mobilisation gëm nañ mobilisation dina tax ëllëg ñu libéré Aline Sané ñu libéré Ousmane Sonko ñu libéré Mamadou Ndiaye TV Bambey libéré président de politique yëpp amuñu lu ñu def ci kaso bi nañ na leen bàyyi ñu dellu seen kër nañu delloo ñu delloo seen njaboot ñu ngi leen di gërëm di sant di gërëm lieutenant Camara bi encadré affaire yi di gërëm organisateurs yi droit de l'homme yi ne ñoom ñooy jël initiative leen di gërëm leen sant di leen xaati fan yi bëgg nañu def fi Dakar fi morte ñëpp mobilisé wu ñu wane Macky Sall que d'accord ñu ci li mu réew mi ci violence ci torture ci rey ay nit d'accord ñu si dañu mobiliser ñun ñëpp ndax ñu libéré prisonniers di gërëm leen sax. jaajëf doyen donc sama gaañu ginnaaw ba ba ay góor rek ay dugg foog ñu raxe foog ñu raxe yëpp yi donc dañuy woo une brave dame une dame